mama yo kadale kadao Assalamualaikum eh, waa Sénégal asalaamaaleykum yow mi fi ak ki ngay magi nu ngi nuyu ñëpp waa Casamance yëpp maa ngi di nuyu man maa ngi Isabel Sambu eh, dek dëkk Moulamp Casamance xaaya eh. donc man dama yengu ci li nga xamantene lolu moy lit olympique maanaam bëre wolof. juróom ñeenti yoon nekk na ko championne d'Afrique ci wàllum bëre benn yoon mu nekk championne mondial beach wrestling maanaam bëre ci wetu géej nekk cinquième olympique cinquième mondial ak it huitième mondial Isabelle Sambou nekk jigéen buy bëre ay raaya yu ne mu ame ko ci indi ko fii ci biir réewam. 1999 la daal di sport bilé ba atum 2016 mu daal di dakkal di carrière am mbapat doon cosaanam ca fa mu ko ca Casamance dëkk bobulé ñuy woowee mbulamp bëre bi dafa doon bëre bo xamante ne bëre la comme ni, du bëre suuf comme suñu bëre bu ñu xam nga ñun mbapat lañu xam ak bëre dor, mais bi olympique la tudd moy manam nit bi nga xamantene dafa moderne champion d'Afrique comme judo euh, comme taekwondo comme euh, yenen discipline yi mhm. bon commencé depuis 1999 euh, lutte ba 2016 bi ma décroché bi ma arrêté suis mhm. qualif pour manam Jeux olympiques 2016 Rio bi mu jexé sila la arrêté lutte sama ciosan la euh, ñun kaasa suñu côté côté usuy ba mulamp manam euh, kabus ñun ñep côté yoyu manam département du usuy jigéni dañuy bëré donc sama ciosan la ma juddo fekk ko fa ma def ko donc euh, Amun na sama yenen frère dañuy def euh, manam beure pour animer mm, gokh yi donc dañ doon beure nonu di beure ak sama morom yi ñom ñu né amna na beure bi nga xamantene euh lutte olympique le tudu yow li ngay beure dafa baax donc mën nga mën nga dem essayer si lutte boobu parce que amna ay jigen yu koy pratiquer bo boobu xawma ko won dama doon ki man ne dede man xawma ma de ñu ma si so nga essayer ba xam bu dee baax na mun nga continuer après ñu waxtaan ci loolu ñu convaincre ma ma ñëw commencé bëri boobu. naam nekkul ci néegu sëy boobu ba tey waaye seede na ni liggéey bile terewu ko benn yoon donte sax askan wi beneen gis-gis lañuy faral di am ci jigéen yi di def sport bile. jigéen buy def sport dafa métti dafa métti si ñun Sénégal. Euh, jigéen buy def sport dafa métti parce que lu ne nga ci dégg lu ne nga ci gis mais waaw surtout lutte bi mais yow dafay bu doonee loo xamante ne li nga bëgg danga ciy jàpp danga ciy parce que dafa doon loo xamante ne li nga bëgg surtout man dafa doon loo xamante ne li ma bëgg mais dégg naa ci lu ne ay da ngay mel ni góor ay doo am jëkkër ay nangam nangam lu ne ñu wax la ko mais soo dégluwee yeneen wax yi doo mën a def li nga war a def il faut nga nga dëgg fii mu génn fële pour nga mën a def li nga war a def. ci bésu bi mars bi la ñu jagleel jigéen ñi nag Isabelle di dellu di ñaaxaat mbokku jigéen mi ngir ñu gën a farlu te liggéey dimbali seen bopp ak it seeni njaboot. liggéey lu boo gis rek liggéey la bu doonulee liggéey bu bu bu yàlla tere maanaam.

maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm dina jigéen ñi acca leen ci kanam ca kanam ca kanam parce que ñun jigéen ñi ñun ñoo yore famille ñun jigéen ñi ñun ñoo yore réew mi presque laa mën a wax parce que jigéen yaay yore kër yaay yore doom yaay yore lu ne donc jigéen ñi ca kaw ca kanam. di saful kulinum du koteyon siet mata kalabu ko do delo parce que le 8 mars ya mo de kala kalabu ko kala kalabu ko ko kila ka hu ban den sen ndo ma mo siet ba tanale am bola di kemuli kalabu bu fe anosan amudu blok di ba coko ba nyina wiya san amudu blok ayni ano san amudu blok ben bukane Bonne, fête, des femmes.